yow daal nga la fàtte leen te dox sa dox non non bu leen may bës doxal sa dox mojo mojo bu leen wutal bës doxal sa dox yow daal buñ la tàtteel doxal sa dox jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéenay seetaan sunu site internet bii di Touba Argentine TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di rafetlu ànd bu ngeen di ànd ak ñun Seexuna Kanji moo nu nekkal ci wàllum caméra bi si Cissé ci kàddu gi tey nag ñu ngi fii ci Touba marché Ocass seet si fi koo xam ne ku ko xamul tamit dégg nga turam muy Cheikh Sow Neex soow nekk ci Touba marché Ocass waaye mën nañ sax jamono jii Cheikh Sow Neex Sow nekk fépp ci Sénégal ay bànqaasam law na. tey jii nag Touba Argentine TV ñëw seet si ko fas yéene séq ak moom waxtaan liggéey bi ñu dooree ko fi nga xam ne moo ci place am bi nga xam ne moo nekk ci Touba marché Ocass waaye dinañu dem place bi nga xam ne moo nekk ci Daarul Xuddoos garage Dakar bu Touba bu bees bi ak fi nga xam ne moom moo di ca euh, Njurbel place bi nga xam ne ubbi na ko foofee ca fi ñuy wax nu marché Ndoumbé kaw Kaolack tamit am na liggéey bu bees boo xam ne moo ngi ko fay waajal benn place bu ma fa ubbi incha allah lépp dinañ ci ànd ak Touba Argentine TV kon tey seex soow neex soow Touba marché Ocass saf soow seetlu soow sa soow mooy suñu gan ñu ne yollu ñëw seetsi ko fi nga xam ne moo di marché Ocass. copain asalaamaaleykum. maa ngi lay ziar. Eh, waa sant yàlla bu baax alhamdulilah macha allah. tey Touba Argentine TV ñëw fii ci marché Ocass seet si la fas yéene ànd ak yow ab doxantu dem lenn ci sa nee naa seex soow neex soow Touba marché Ocass waaye léegi seex soow neex soow Sénégal wërngal këpp. Cheikh Sow Nekh Sow international salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum ñi nga xamante ni ñoo ngi seetaan euh, Argentine euh, TV euh, di leen sant di gërëm di nuyu ñëpp di. waaw di ziar ñëpp di baal ñëpp di baal ñëpp di nuyoo sëñ Mountakha di ko nuyu di ko ziar baax di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te ànd ak wér sëñ Sidi nga xamante ni moo fi jógewul bu yàggul yàlla yokk ay leeram taas ñu si barkeem di di ziar ñëpp di baalu ak ñëpp di nuyu samay client ak samay cliente góor jigéen mag ndaw xale bàyyiwuma kenn képp koo xamante ni soppe Cheikh Sow Nekh Sow nga rek wala képp koo xamante ni yaa ngi mos ci sowum Cheikh Sow Nekh Sow maa ngi lay sant di la gërëm aussi tamit di la nuyu nuyu bu mat sëkk. place bi mooy ndey place yi nga xam ne yëpp law nañ léegi ba place yi macha ci Sénégal mm. donc rek cosaanal place bi tuuti rek ci benn minute nga tënkal ñu ko ndax fas nañu séq ak waxtaanu yaatu waaye incha allah ci diwaan bu Diourbel la fa seenee doon ci kanam tuuti. ah jërëjëf euh, jërëjëf sëñ Harouna si sama lay gërëm bu baax di la sant si tënk rek euh, place bi euh, moo moo jur place yëpp parce que place bi mooy place bu mag bi place bi nag sama bopp moo fi nekkoon avant 1960 boobu yàgg na jamonoy sëñ Fallou moom moo fi nekkoon fii may taxaw nii di wax ak yow sëñ Fallou ñëw na fi ñaan fi. Ah boo waaw ñaan na fii may taxaw nii. Fallou Mbacke sëñ Fallou ñaan na fi boobu sama waajur wu góor la fekk Baye Sow yàlla na yàlla leeral yàlla na yàlla yokk ay leeram bu baax ci fa mu nekk euh, moom la fekkoon fii ñaanal ko ñaan googu nag ci lañ nekk ba léegi nii place bi nag moom place sëñ Fallou la doon sax yëpp place sëñ Fallou la waaye bii mooy bu mag bi euh, bi tamit moo jur yi nga xamante ni ñoo nekk Sénégal gépp muy Touba muy Njaareem muy Kaolack muy Thiès muy Dakar yi nga xam ne moo nekk fépp place bi moom moo leen jur place bi nag waxuma la place yi mu jur mais personnel yi nga xamante ne ñoo fi génn ber seen bopp rek kenn euh, moom euh, ñeneen ak dañ fay jaar euh, def ay stage yàlla dëkk yi feneen ci Sénégal ba Gabon koo xamante ne Amadou Sow moom moo fa nekk Gabon la nekk fa lay jaayee Sow ci Port-Gentil fa la nekk ku ne xam na ko siiw na fa lool macha allah fii la génnee mais dafa am lu a neex mi nekk ku wax soow wax weñ te dama ci biir fi nga xam ne fi la euh, soow mi nekk duma fi gis benn weñ boo xam ne moom mooy jaabante yéen yéen a ngi jàkkaarloog li nga xam ne image lan moo waral loolu. waaw loolu noonu secret la parce que même man mii sax daf ma jaaxal ay jamono benn nawet nawet la woon euh, weñ yi mooy jamono weñ yu bari yi. Euh, weñ yu bari la woon ay jamono léegi nag euh, weñ yu sonal sam papa lool sonal ko fi lool am benn kilifa gu mag xam naa lu mu tudd ko turam wala si kanam dinaa tudd turam mu ñëw fi sam papa ñëw ko ah ñu jaaxal waaw mu ne ko mu ne ko waaw mu ne gis nga de weñ jaaxal tey mooñ tere liggéey sëñ bi ne ko loolu koy bu tey lay dàkk foofu ndox sam papa dem tànq ndox jox sëñ bi sëñ bi ñaan wis si place boobu lañ fi gëj a gis weñ ba léegi nii moo gis fi weñ du yomb kon daal soowum seex soow neex soow du neexaayu soow mi rek waaye civilisé gi ak sell gi am na ci solo ndax biir lu ciy dugg war nañ koo xam. te muy lu war civilis civilisé gi ak sell gi am na solo parce que ñun dañoo boole set sell qualité quantité loolu nag macha allah maa fi nekk man mii di wax ak yow di Cheikh Sow Neex Sow à part man Moussa Sow boo boo fekkul boo ma fekkul nga fekk Moussa Sow à part loolu nag xale yaa ngi fii ku ci mel ni ñoom Soda ñoom soxna ñëpp daal ñoom daawuma kenn ku lim juum parce que personnel bi macha allah tàkku na. ñu doxantu kon daal di dem ci lenn ci ay barab. waaw kon xam naa maa ngi joxante ndaje euh, dig euh, dig daje seetaankat yi incha allah Darou Khoudoss wala fële ca garas Dakar wala fële ca Ndiarème wala fële ca Kaolack wala fële ca Thiès ak Touba Argentine jëm sa kanam incha allah. yow daal nga la fàtte leen te dox sa dox non bu leen may bës doxal sa dox mojo mojo bu leen wutal bës doxal sa dox yow daal buñ la tàtteel doxal sa dox. ngi noonu ci oto bu rafet macha allah borom soow mu neex mi borom soow soow mu set mu sell mi yaa say daal sat ñu fas yéene ànd ak alaaji neex Sow ci marché Ndoumbé Diop fii ci Diourbel ci place bi nga xam ne nii bokk na ci place yu yees yi ndax damay wax ne Cheikh Sow neex Sow Touba marché Ocass mais léegi nag seex Sow neex Sow monde entier àdduna wërngal këpp. waaw seex a ngi fépp seex ngi daj fépp. mbokk yi ñu fii ci euh, kër gu mag. ànd ak ki nga xam ne mooy Cheikh Sow Nekh Sow kër gu mag ci njaareem yéen a ngi nii jàkkaarloog Cheikh Sow Nekh Sow ànd ak Seyda Bintul Seyda Astou Niass Bintul Azat mi nga xam ne nag macha allah ñëpp xam nañ ko ah tarkalla alaaj Cheikh Sow Nekh Sow. waaw maa ngi ziar maa ngi leen di ziar bu baax nag yi tey bàyyi na nga am jàmm baax a baax euh, waaw ñu de pour l'instant ñu ngi jëm nii si place bu mag ba euh, nga xamante ni moo nekk njaareem. Euh, nekk ci marché Ndoumbé Diop fa lañ jëm nii mais xam naa waa actuellement ñu ngi nii kër gu mag euh, mais dañuy def euh, benn ziar fii si jumaa ju tedd ji jumaa ju sell ji nga xamante ni moo nekk fii ci njaareem muy jumaa ju mag ji nga xamante ni maanaam macha allah ñëpp xam nañ ko ku dugg njaareem rek li ngay njëkk a def mooy ziar jumaa ji ba pare balaa ngaa def dara parce que ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba fii la newoon yaakaar naa loolu ku ne xam na loolu. xol ba di dagg ci tuba fa loolu doy na ay dumay dóor buñ la tardeel doxal sa dox yow daal nga la fàtte leen te dox sa dox non bu leen may bës doxal sa dox yow daal bu leen toppatoo doxal sa dox mojo mojo bu leen wutal bës bàyyil ñu dem mojo mojo bu leen wutal bës bàyyil ñu dem leen bëggee bu baax a baax mbokki internet yi Touba Argentine TV comme noonu ko Arona waxee rek ñoo ngi àndandoo Cheikh saw Nekh Sow ki nga xamante ne mooy borom sow ki nga xam ne sow mu sell te wër te baax te dis te neex rek ci moom lañ koy fekk baax moo tax ginnaaw bi ñu ko nuyoo ziar ko waaw waaw day weex te du weex de maa la wax lii ah, kon sëñ Cheikh ñu nuyoo yow jàmmante nga wax ñu lan moo waral nga indi place bi fii ci Njaareem. di gërëm ñëpp di sant ñëpp surtout samay client ak samay cliente di nuyu waa Njaareem naan leen asalaamaaleykum wa rahmatullah di jëlee kër gu mag euh, ba euh, Njaareem daal bàyyiwuma kenn a baax waaw euh, affaire yi ñu koy tasaare ñoo bëgg mu gën a yaatu parce que à part Touba Dakar Thiès Louga Mbour ngi nii si Diourbel xam naa après Diourbel ñu ngi Kaolack incha allah fan yi bu soobee yàlla mais instant bi ñu ngi nii Diourbel mooy place bi nga xamante ne moom la ñu Mermoz su fekkee raison yi bi moom mooy place mujj si raison yi pour l' instant mais bu ñu ci jógee incha dem Kaolack euh, fi jàkkaarloo centre commercial bu bees bi nga xamante moom la ñuy tabax moom la ñuy tabax foofu mais incha allah dañoo bëgg yaatal affaire yi moom moo waral ñu indi Diourbel indi Thiès indi Mbour indi Louga fépp daal waaw Cheikh Sow Neex Sow partout daal lañ bëgg def. Cheikh système bi place Touba bi di doxee ak bi nga xam ne mooy bu Diourbel ndax am na différence tuuti. waaw différence bi mooy euh, bii nii 24 heures sur 24 la. Euh, fekkee bu Touba bi nag moom 20h day tëj 20h 21 mu wàcc mais bi moom 24h sur 24 dafay mooy seen différence mais bu fa wàllum qualité wàll. moom guddeeg bëccëg. day dox waaw yëpp ku soxla soo boo ñëwee di ko fi am. waaw marché fee nag marché la bu 20h jotee dañuy autorisé pour ñu tëj wala 21h fii nag moom voie la yoon la boo xamante ni rue d'Avignon la rue bi jëm hôpital bi la nekk si marché Ndoumbé Diop bi 24h sur 24 place bi dafay dox. Diop lañ may wax. As Diop loo xam ci Cheikh Saw neex soo. neex rek. dama koy fekk Touba. Uh-huh. di ko fekk Njaarim. Uh-huh. su ma demee Touba. Uh-huh. maa ngi ci en si garage bu bees bi. maa nga marché Ocass. man daal dama koy wër. Madou foo wër foo làmb Seex Sow rek yow daj ko. dama koy wër. maa xam loolu. man dama koy wër ñoom. xam loolu looy yëg ci sowam. laaj ko. Mm. neex. Uh. ko commande fii fi mu ne nii. booy bi defaral na ma ba teg. du ma ñëw mukk ñu ne ma jeex na. soo mu daal di ñëw. booy bu ñëw jox ma kon daal yow sant nga seex gërëm ko. déggoo ah. na dolli. lan moo waral sa teewaay fii ci biir place bi. mi waxuma la parentali waaye xale yi namp sax nampatuñu seen weenu yaay. ah soo mi lañu soo mi mën naa dem génte mën naa dem céet ah. mën naa dem gu waral ah. mën naa dem ngoro hmm. mën na wàcce kaamil hmm. mën naa takk jabar mën naa def lépp ci biir kër gi moom soo mi waaw moom moom soow mi soow daal kër gum dugg kenn dootu fa soow soow mi mbere mbese la kër goo dugg dootoo fa fekk ab xuloo dootoo fa fekk coow ndax soow mi Cheikh Sow toj na réew mi yoo xam naa booy booy booy dem ci bool bu may tëgi dama yóbbu sama kara fii laay jaar ci Cheikh Sow duy ko ba mu fees man xam na ma lan nga nu mën a wax ci Cheikh Sow moom mi nga xam ne mooy borom neex Sow Cheikh moom turu turam wuy jëna boromam Serigne Cheikh Tidiane Serif lañ ko tuddee te it réew mi rek a ko ñor askan wee ko ñor njaaree ma ko ñor ndax bi mu ñëwee njaareem ak léegi benn jéeg yooyootul benn jéeg xolootul benn jéeg coowatul ndax soowam mi Cheikh Sow daal ca kanam a kanam rek. ñu dellusiwaat tamit ci beneen place ñu bëggoon a xamoo Cheikh fi mooy fan. ñu place bi nga xamante nii moo nekk si gaz Dakar bees bi si euh, Touba. waaw fii nag jibi moo fi nekk comme ni mu leen ko waxee sànq li nga xamante ne moo am si yeneen place yi rek moom moo am fii muy sow mu set sow mu neex sow mu am qualité macha allah lépp loo xamante ne am na place bu bi nekk fële ci marché Ocass mu ngi fi fii nag jibi moo moo fi nekk koo bëgg a jot da nga koy wax 77 224 55 42 77 224 55 42 ci nga koy jotee ji bi nag moo nekk fii commande yi nga xamante ni mën koo def it bu la neexee mën ngaa ñëw def si ko fii. waaw ah, kon mbokk yi yéen a ko déggandoo comme noonu ma ko waxee rek Cheikh Sow neex Sow la. yow daal buñ la tàddeel doxal sa doom jeexal tournée yi nga xam ne doon nañ ko amal ak ki nga xam ne mooy Cheikh Sow Neex Sow mi nga xam ne ràññee nañu ab liggéeyam ci réewum Sénégal rawatina it ki nga xam ne mooy dëkk bu sell bi nga xam ne moom moo di Touba ndax Touba am na fi ñetti point de vente yoo xam ne fi lay jaayee lii nga xam ne moom moo di soow mu set sell te weex nga xam ne macha allah. Cheikh Sow ñëpp a ko xam ci réewum Sénégal waaye nag jamono ji mu am yeneen i nësër yoo xam ne nësër na ko ngir jeexalandi reportage boobu actuellement ñi ngi ci point de vente bi nga xam ne moo nekk ci eh, Daarul Xudoos ci intersection bi nga xam ne eh, moo jëm ci diggante garage Daaru ak fi nga xam ne actuellement moom moo di Euh, Aliya foofii la place su Sow neex Sow muy place bu yees bi nekk actuellement ñi ngi taxaw ak moom gis nga ko nii yaa Seyda. non comme noonu ngi ko waxee rek mbokk yi bàyyi xel euh, Touba Argentine TV ci suba ba léegi ñi ngi ànd ak Cheikh Sow neex Sow ànd ak moom di wër mu xamal lañu ak i place fi mu féete ak ay qualité am bas ñu jox la micro bi nga wax ñu lan nga xam ci Cheikh Sow neex Sow. maa bëgg Sénégal gépp ak waa Touba xam ni Cheikh Sow daal la nii képp koo xam ne nii da am mm, ngénte mbaa ceet. mbaa ngay def mariage ba ci anniversaire nee naa la boo bëggee soow bul daagu fenn bul dem fenn felaaleel nga sànnee ko waale ñëw Cheikh Saw jox soow mi nga daal di felaale waale daal di demaale moom sëñ Touba la yaakaar bëgg ko di taali bi bëgg sëñ Fallu te sëñ Fallu ku mu fat doo fanaan bit xam ne ne si tey am na xamee léegi ëpp na fukki at ak nangam mais ku baax a ngi ne gor fu baax a ngi ne koo xamante ne ndaw ñi nga xamante ne tool nañu si science boo xam liggéey rek lañ gëm Cheikh Sow dañuy encouragé naan leen góor leen si liggéey bi te na ngeen góor góor si liggéey bi waaw Cheikh Sode moom wax dëgg yàlla yéex naa ñëw Daaru Xuddoos ndax ñun daal sonnatul boo yor sa cent francs jaar ci Cheikh mu jaay la ba mu jar amul benn problème di la may sax di la ca tegal nag soo mi neex loolu sonnatul ci suukar si ndax lépp a ngi ci biir. laaj la lan nga xam ci seex Sow borom Sow mu neex mi. waa euh, Touba Argentine TV. di rafetlu bu baax nag seen liggéey. Cheikh moom dafay sama gaañ. borom baax la te aussi tamit euh, Touba nawloo nañ ko Sénégal nawloo nañ ko ndax liggéeyam bu rafet. ndax euh, lekk dafa xaw a sensible te nit ki boo koy jaay defar ko ba mu baax pour ñëpp di ko mën a jëfandikoo franchement ba télévision yeeg ñëpp euh, nangul la kon gàcci ngaalaama Cheikh Sow. waaw <laughs> ah, Cheikh sunu grand la xamante nañ bu yàgg ci marché Ocass man marché lay liggéey moo nekk sunu grand ñun ci moom la ñuy dem di jënd caagri ñun ñoo kon mbokk yi yéen ko gisandoo ñun la waa Touba Argentine TV. dégg nga kàddu yi nga xam ne askan wi muy askanu marché Ocass. ak ñi nga xam ne ñooy waa Diourbel waa garage Dakar waa Daaru Khoudoss population Touba région de Diourbel kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati nañ ko ci yow muy client yi muy xarit yi muy soppee yi kenn ku nekk li ñu wax ci yow seex ngir jeexalandi ak yow rek lan ngay tàggatoo ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk li mu doon wax sànq ba léegi moom laay delluwaat di leen ko wax mooy euh, kaddu sant kaddu gërëm surtout yéen ñi nga xamante ne suba ba léegi ñu ngi ànd ak yéen a ngi ànd ak man di tourner ak man di leen sant bu baax awma seen fay parce que déplacement dafa metti leen déplacement seen studio ba léegi wax dëgg yàlla awma seen fay dama leen di sant bu baax a baax a baax di leen bàyyi ak suñu borom mi am fay mu fayal leen boppam en tout cas daal di kontaan samay client di kontaan samay cliente di ñaanal tamit euh, samay client ak sama cliente yàlla may leen jàmm ak salaam ak wér ak wér gi yaram man ak ñoom daal ba jusqu'à fin. waaw wax nag la yeneen gox yi Sénégal waaw yeneen gox yi moom nañ xaar seen wàll nañ xaar seen wàll bientôt incha allah lépp ñëw incha allah dañuy wër Sénégal waxuma la sax Sénégal Kaolack Kaolack muy waaj a pare. Euh, après Kaolack Dakar war nañ faa dolliwaat ñaari point de vente incha allah Louga moom dèjà pare na kon xam naa Sénégal gi yëpp incha allah mu daj. Hmm. waaw Sénégal gi yëpp léegi mu daj. nga xam ne da ngay gis ñuy def seex soow neex soow. waaw waaw dëgg la loolu noonu sax euh, moom dañ naan euh, njaayum saw géej la tànk tax koo jeex mais nañ ko sellal man bañu ma ku ma praat bañu ma tamit kuy roy ku ma roy parce que euh, ba tey tamit roy du no loolu moom am na mais nag nañ ko sellal daal sellal liggéey bi jaarle ko yoon ba du am benn jafe-jafe fekk ñu ngi koy sellal daal ñëpp mën nañ see en tout cas daal nañ ko sellal mm. bëgg naa ñëpp tamit mel na seex saw neex saw su ma seen jàkkal sow yëpp mel ne Cheikh Sow neex sow mais leen ko mën a may mooy sell gi. Cheikh Sow léeg-léeg ñu gis ay nit di jël ay kàddu yu tuuma di ko teg ci moom. Mm. kàddu yu ñaaw yooyu di jógee ci ñeneen di ñëw ci yow soo agsee ci yow naka nga koy ko waaw loolu moom comme damay euh, dama koy def comme woyu Youssou Ndour bi rek nan la waxati sax. Euh, jeex na kon xam naa comme noonu rek dama koy bàyyi Youssou Ndour tontu na leen. yow daal nga la fàtte nga daal bu ñu la tàtteel kon daal si ñëpp daal di baalu ak ñëpp di baalu ak ñëpp en tout daal képp koo xamante ni mos nga am lu la naqare wala lu la métti Cheikh Sow Nekh Sow Cheikh Sow Nekh Sow na si devant caméra di la jégalu di la baalu ak bu baax a baax. kon yaakaar naa tey Cheikh xolam sedd na waaye xelam dal na rawatina ay client am ak clientam yaakaar naa ñëpp bég nañ ci moom. waaye nag gàcce ngàllaam ak euh, suñu mag ju baax ji ko koy Arona Cissé olofologue bi doom Baye Fallou Cissé bi ñuy bég ci moom bu baax a baax waaye suñu caméraman kontaan nañ ci moom bu baax a baax ndax lii lépp moom la ñuy bég ci moom bu baax a baax Gora Seck ma nga foo ca diwaanu Argentine kontaan nañ ci moom di ko ziar bu baax a baax sëñ Arona kon jox dig daje mbokk yi rek ba beneen yoon ci beneen daanaan bientôt bye bye